barakallahu fiikum ñu ngi woon ci kon ay 66 bi ci suratu nisa suñu borom di wax ni walaw an katabna alayhim cay ñoom day bu doon dañoo bindoon ci ñoom ca mooy farataaloon ci ñoom an iqtulu anfusakum ca mooy rey leen seen bakkan yi aw yuxriju min diyaarikum wala ngeen génn ci seen kër ya maa faaluuhu illa qalilu minhum du ko woon def lu dul lu néew ca ñoom walaw annahum faalu maa yuazuuna bi ce bu doonte ne ñoom day dañoo def la nga xam ne dañu leen ciy xuppe al mawisa mooy nit ki nga jàngal ko mbir ba pare ñaax ko ca imma pour mu def ko wala pour mu bokkoo la kaana xayran lahum loolu day doon na nekk yiw ñeel leen wa ashadda tasbita te doon na gën a nekk di dëgërit ci lu leen di saxal ci ngëm wa idan la aataynaahum min ladunna ajran azima ca ko nit dañ leen jox ci lu bawoo ci ñun yool boo xam ne yool ba màgg la wala hadaynaahum siratan mustaqima ca it doon nañ leen jubal yoon boo xam ne yoon bu jub la wa man yuti illaha wa rasul koo xam ne daa topp yàlla topp yonente ba rey fa ulaika maa alladina anama anama allahu alayhim ñooñ day dañ ànd ak ña nga xam ne yàlla xiiwal na ci ñoom min annabiyin ca ña yàlla yónni woon wa siddiqin ak ña nga xam ne dañoo dëggu woon ca seen diine ja wa shuhada ak ña dee woon fi sabilillah wa salihin ak ña nga xam ne dañoo jëfoon jëf yi yiw ya ca biir diine ja wa xasuna ulaika rafiqa ca rafet na ànd ak ñii ci ay àndandoo ànd ak ñooñu ci ay àndandoo dalika alfadlu min allah loolu ngëneel nag ma nga bawoo ca yàlla wa kafa billahi alima te doy na yàlla muy xam ana kan moo yeyoo ay ngëneelam yàlla nañ ca boole mi ngi noonu mbokk suñu boroom biñ fi mujjee daje démb mi ngi waat ci boppam ne ñiy wax ne dañoo gëm dey duñu gëm lu dul dañu lay attewoo ci lépp loo xam ni luy dox la ci seen biir loolu boo àttee ba pare it duñ ci am benn ñagg-ñaggi xol waaye dañuy jébbalul yàlla ak jébbalul loolu nag la ëppoon ci naafiq yi nanguwuñu ko moo tax suñu borom ne ñii ma ne kaay leen àttewoo tiiram yàlla bi ñu bañ waaw bu doon te ne ne dama leen a sant ne leen rey leen seen bakkan ay reyante leen seen biir ndax dañ ko def ay ñoom duñ ko def ca loolu mbokk mas naa am mas naa am ci nattu nattu bu jëkk ba mooy xaritam ba ibrahima alayhi salaam yàlla nattu na ko mu dund lu jege téeméeri at amul doom yàlla may ko doom bu baax muy ismail suñu borom nattu ko na ko jël ko nga rendi ko mu ñëw wax ko doom ji doom ji ànd ak moom jébbalul ko nangoo tëdd baay bi nangu ko rendi bañ demee ba dogu ci loolu suñu borom yàlla ne ko dëggal nga li ma la waxoon bàyyi ko ñoom ñaar ñooñi la yàlla sant ñu tabax kaaba gee nekk ca makka mu def ko référence jullit ñépp gannaaw ba itamit dañoo gis ni ñii di bani israil yahud yi àndoon ak Muusa ba leen Muusa bàyyee ci daje bu ko yàlla woowoon pendant quarante jours dañoo wëlbatiku di jaamu benn nag gannaawam suñu boroom ni pour mu baal leen fokk ñi doo jaamu nag bi yépp ñu dajale leen rey leen suñu boroom yàlla wàcc ci ñoom benn lëndëm jubal xoli bànni Israil ne néew na lu leen yàlla sant ñu def ko waaye keroog moom def nañ ko ñu nekk di tim di rey di rey di rey Muusa ak Haaruna di ñaan baba suñu borom yàlla di wax doy na am na ñu ne rey nañ ci trente mille ci bëccëgu keroog loolu moo tax suñu borom ne wax xanaa su ma leen waxoon rey leen seen bakkan du ñu rey seen bakkan waaye na am bu deente ne ni jullit ñi day ñoom yu dëgg yi dañ ko def borom bi subhanahu wa taala ne waaw su ma leen waxoo nit yéen ñépp génn leen gàddaay fi sabilillah ndax kon dañ ko def ci mbokk jullit ñi ngi sant yàlla bi ñu dajewu nag faratey gàddaay waaye mbokk gàddaay neexul de ndax xam ngeen diggante Makka ak Madina mi ngi nekk plus de quatre cent kilomètres xoolal loolu nga mën a jóge dëkk boo xam ne tey ah sore na noonu mi ngi noonu dana jóge fii presque ay notion xamoo fa kenn ñu ne la nag fokk nga bàyyi li nga am fii yépp gàddaay dem foofu loolu nekkoon na lu tiis lool suñu borom yàlla tëkku ci ne ñi gàddaayul dey ba dee ci nangam nangam moo di jural ban demee ba lislaam am doole la suñu borom woyefal loolu doonte ne ni dana fi des ba tey bépp jullit bu nekk ci gox ca gox ba mënu faa jaamu yàlla farata la ci moom mu gàddaay yi ngi noonu fépp fu ñu naan la fii ku fi nekk di julli fii ku fi nekk nangam nangam fokk nga sujudul xërëm yi fii ku fi nekk il faut nga gàddaay mu desit gàddaay yu ngëneel mooy heure boo nekkee ci gox ca seen diine doye di nga dégg gox boo xam ne seen diine gën a rafet nga laaw boo mënee tuxu tuxul foofu bu dee dëkk demal bu dee quartier tuxul bu dee kër tuxul ay dem dëkk ak ñoo xam ne nii dañuy jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell borom boobu subhanahu wa taala nag ne loolu day bu ma leen ko santoon du ko def lu dul lu néew ci ñoom aay bi yeneen ci bi alayhi salaam tari na ko ca jàkka ja geestu yem ci abdullah ibnu rawaha daa dina abdullah ibnu rawaha mii day ca la bokk mu bokkoon ci ndawi sahaaba yi loolee teg nañ ci ab jamono ñu daal di dem di xeex ak romi yi muy xeex bi gën a tar bi yu jullit yi doon xeex ndax ñoo nekkoon puissance jamono jooju ñuy daje ca Mu'tata bañ demee Zayd ibnu Haarisa yoroon drapeau ba yàlla dogal ñu daaneel ko ñu teg ca kii di Jaafar ibn Abi Talib jël drapeau bi yàlla dogal ñu daaneel ko ca la ko Abdourahman ca la ko ki nga xam ne Abdullah ibnu Rawaha daal di jël fekk jullit ñi bëgg a dellu gannaaw mu waar leen xamal leen ne ñun jihaatuñu lu dul fi sabilillah ci kattanu yàlla daal di wëlbati ko ne ay sama bakkan demal suñ la reyul ci jihaat bii da ngay mas a dee rek kon fexeel dee ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala loolee keroog foofu lañ ko reyee ca la yàlla dogal Xaalid ibn Walid jël drapeau bi fexe ba muccal jullit ñi dellu si leen la nga xam ne muy Madina almuhim kon mi ngi noonu mooy jullit bi ngëmam dëgër bu yeggee ci xamoon ne ngërëmal yàlla kat mi ngi nekk ci rey baayam day rey baayam foog naa yéen ñëpp xam ngeen histoire abu ubayda amir ibn jarrah mi ngi noonu moom la ñuy duppee jumaa yi Cheikh Ousmane Gallaajo ba lay nekk ci 26 bañ dajee ca xare Badr papa ji ñëw rek attaqué ko mu évité ko première fois mu attaqué ko rek mu cor bopp bi booba waxumaa yéeféri mais julli di seen bopp sax dañu jaaxle rey sa bàyyi nag ci kanamu nit ñi ca la suñu borom yàlla wàcce aaya nekk ci mujaadala te déedéet doo fekk mukk gëm yàlla gëm yonent yàlla di am benn cofeel ci ku noonoo ak yàlla ak yonent yàlla mi ngi noonu loolee kon mooy la nga xam ne moom la borom bi wax borom bi nag ne cey bu doon te ni li ma leen sant def nañ ko loolu day moo gën ñeel leen ceyit moo leen di gën a dëgëral te mbokk suñu borom yàlla jullit dafa war a gëm ni yàlla du ko sant lu dul lu njëriñam nekk suñu borom muy alxani moom soxlaalul kenn dara lum ñu sant rek ngëneelam la bam ñu sant jihaad ngëneelam la borom bi mu ne loolu moo gën ci ñoom ca it kon danaa leen ca jox pay yee nga xam ne moo gën a mag kon coono bu ngeen mën a am ci jihaad ngallaway def leen ko ca it mbokk gëm ngëneel moo tax suñu doom yi jël seen bakkan teg ko ci océan bi ñii teg ko ci désert bi amul benn at ci at yi ñu mujj dund lu dul lu jege ñetti junni ci ñoom dana daanu ci biir dex gi am na ci benn année sax xaw ma ci ban laati cinq mille daanu na ci ñoom ci biir géej ngiree lan ngir dabu ji Barcelone ngir dabu ji alal loolu nag moo taxoon sahabatul kiram ñi gëmoon àjjana it looloo taxoon ndigal yàlla jaral leen loolu kon suñu borom mu ne loolu moo gën ci ñoom te it danaa leen jubal siratan mustaqima muy wane it na mbokk yàlla mu jubal ko ko neex ila siratul mustaqim doonte ne yow mii ñaan yàlla jubal la siratul mustaqim fukki yoon ak juróom-ñaar par bis suñu borom mu ne law annahum faalu ma yuazuna bihi ñooy dañoo def la leen yàlla xuppe sooy ñaan yàlla jubal la si yoonu njub loo xam jëfeel luñ la teree bàyyil ca ngay demee di avancé loo jëfee rek yàlla xamal ne loo jëfeelul woon yazidu llahu lazina ihtadaw huda tant que yaa ngi góorgóorlu ci njub yàlla di yokk sa xam-xam tant que yaa ngi sàggane yoonu njub yàlla di nangu sa xam-xam ay kon lahadaynahum siratan mustaqima danaa leen teg jubal leen ci yoon boo xam ne yoon lu jub la léegi nag ñu ne sababu aaya bi ñu bëgg a jàng benn ci magi sahaaba yi dafa toog rek sëngéem yeneen ci bàyyi saatu sam ne ko waaw yow lan moo tax dama lay gis toujours boo ñëwee rek da ngay triste nga noonu ca mbokk diine yi lislaam it mooy diine yi yaatu xol yaatu dënn féex yeneen ci bàyyi salaam nee na dajeeg sa mbokk jullit reetaan ko loolu rek sarax la mooy muñ ci kanam sarax li yàlla axir mu ne ko ah yi mu yàlla yéen ni cofeel gi ma la bëgg daal rek moo ma jaaxal danaay dem sama kër nit bi du ma toog lu yàgg lu dul danaa bëgg ñëw rek pour jàkkaarloog yow te dama xam ne sama jaamu yàlla lu mu rëy rëy rëy rëy bu ñu demee àjjana dootu mën a gisati ndax place ba ngay nekk du bokk ak place ba may nekk ci loolu suñu borom yàlla wàcc aaya bi daal di ne déedéet képp ko topp yàlla ak yonenti yàlla ñooñu de yàlla dana ko booleeg ña yàlla xéewal ñan la yàlla xéewal mooy ñam xéewal tam tànn leen ay yonent mbokk yonent amul effort booy def pour nekk yonent yàlla koy tànn def ko ku ko neex yàlla dana ko booleeg as-siddiqin as-siddiq mooy ki nga xam ne dafa dëggu ci diine yàlla bi ci biir ak ci biti kenn du gis ci moom lenn luy nuroog fenn wala naafiq ka ca jiitu woon ci xeet bi mooy Abu Bakar radiyallahu anhu ci jigéen ñi it suñu borom seedeel na ko Mariama mi ngi noonu wa ummuhu siddiqa ku dëgg la woon suñu borom dana ko booleeg ñi dee fi sabilillah ashuhada ñoo ñi nga xam ne ñoo dee ci toolu jihaad boole ko gaa yu baax ya ca loolu muy waññe ne mbokk diine lislaam mooy diine yéene yow mënoo fexe ba nekk yonent mën na amit sa jaamu yàlla yeggul ci siddiqiina yi jihaatoo bay dee fi sabilillah waaye yéene ba nga am bu rafet tax na yàlla yëkkati la ca garaatu yonent ya ëllëg nga dëkk ak ñoom fa ñu dëkk yonent bi alayhi salaam woowaa ji na ko xamal ne day koo bëgg bëgg mel ne moom yéene ànd ëllëg yowmal qiyaama al mar'u ma man ahabba loolee bégal sahaaba yi lool bégal ko lool suñu borom nag mu ne ñii de ñoo rafet aw àndandoo looloo tax garab bi gën a kawe ci àddina muy firdaws soo dellu woon ci suratul mu'minuun suñu borom wax ne jullit ñuy nar a dëkk firdaws te tudd fa ak yonent tudd fa ak jihaad tudd fa ku dee fi sabilillah ay melokaan rek la wax mooy ñi nga xam ne bu ñu jëlee dañuy toroxlu jël seen alal di ca joxe ci yàlla tax wattu seen bopp lu dul ci seeni soxna wattu la nga xam ne moom mooy seeni kóllëre wattu la nga xam ne mooy seeni julli suñu borom mu ne ulaika humul waarisuun allazina yarisuuna al firdaws ñoom ñi firdaws lañ jëm lu waral loolu mooy leneen liñ deful lépp seen kattana ci yeggul waaye yéene woon nañ def ko moo tax suñu borom ni wa xasuna ulaika rafiqa ak baax ñii ci ay àndandoo borom bi nag ni lii ngëneel la bu bawoo ci yàlla mbokk li ngeen yàgg a dégg fii bu safaanoog li ngeen di dégg ci rajo yeeg télévision yi mbokk àjjana ngëneel la bu bawoo ci yàlla mi ngi noonu àjjana ngëneel la bu bawoo ci yàlla sama nopp yi may na ma ne jamono bi benn waay bu naan jamono bi yàlla di génn sëñ diw àdduna yàqu na yàqu goo xam ne nii rus gu ko yàlla rus moo tee mu tàbbal ñépp sawara looloo tax képp ku dugg àjjana rek ci ngénnilu sëñ diw nga ca duggee mbokk loolu suñuy wax la ca am na yu gën a garaaw yooyu waaye li ñu leen di wax mbokk dugg àjjana ngénnilu yàlla la bu doon yonent bi alayhi salaam am na kàttanu dugal kenn ajjana dana fa dugal abi taalib dana fa dugal abi lahab mi ngi noonu waaye taxaw na ak i mbokkam woo leen kenn par kenn yéen waa Quraysh ñi ma bokkal ay maami ki maam yéen waa bani Hashim ñi ma bokkal benn maam ba woo Fatima ne leen góor góor leen jaamu yàlla laa ughni ankum min allahi shay'a moomalu ma leen ci yàlla dara ajjana ko fa dëkk ngëneelu yàlla la saxaaba yi dem nañ ba ne ah yow mi yàlla yónni yow nag ak sa jaamu gi mu ne ba man mii day sama jaamu yàlla duggulu ma àjjana lu dul yàlla ci dolli ay ngëneelam loolu tax jaamul yàlla ca yaakaar ci yàlla kese jaamul yàlla yaakaar yàlla tàbbala àjjana kese keneen koo mën a yaakaar ca du yàlla rawatina ci ñi nga xam ne ñoo ñu ñëw gannaaw yonent bi alayhi salaam amoo benn garantie ne moom àjjana la jëm wallahi amul amul benn garantie ne àjjana la jëm keneen ku yone koo xam ne bi muy judd fekk na yonent bi faatu kenn ñemewul dogu ne àjjana la jëm lu dul njort lañ mën a am ci moom waaw ki nga mënul dogu ne àjjana la jëm looy yaakaar ne moom moo la yóbbu àjjana nag su ko defee mbokk àjjana ci yàlla lañ koy ñaan ci yàlla lañ koy yaakaar zalika al fadlu min allah wa kafa billahi alima yàlla nag mu ne doy na ci moom xam ay jaamam kan moo ci yoo gëneel boobee yàlla na yàlla boole ñu ci
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات فانفروا جميعا وإن لم ينفر لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشمون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما بارك الله فيك سني برمني يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ay yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm jël leen seeni matukaay fagaru leen fanfiru subaatin ngeen dem ci mbooloo yu ndaw aw infiru jamia wala ngeen ànd yéen ñépp génn dem jihaad wa inna minkum laman lu yubatti an na am na ci yéen ñoo xam ne dañuy nekk di des gannaaw fa in asaabatkum musiba bu dee ne musiba dal na leen ci seen jihaad ba qaala qad an'ama allahu alayya su ko defee mun a ah man de yàlla xéewal na ci man iz lam akum ma'ahum shahida ngiree nekkumoo ànd ak ñoom di seede musiba ba leen dal wala in asaabakum fadlun min allah amma nag bu dee da leen a dal ngëneel bu bawoo ca yàlla la yaqulanna ka an lam takun baynakum wa baynahu mawadda daan wax mel ne musul woon a nekk seen diggante ak diggante ñoom benn cofeel yaa laytani kuntu ma'ahum e waay ak a neexoon ma ànd ak ñoom waay fa afuuza fawzan azima ngiree ma texe texe gu màgg ca ngañaay ya borom bi mu ne fal yuqaatil fi sabilillah ngal la waay ne xeex ci yoonu yàlla alladina yashruuna alxayaata addunya bil axira ña nga xam ne ñoo jaaye dundug àdduna gi ca àllaaxira wa man yuqaatil fi sabilillah koo xam ne dafay xeex ci yoonu yàlla fa yuqtal aw yaglib mu rey ña muy xeexal wal fa yuqtal ñu rey ko moom aw yaglib wala mu gañe ña muy xeexal fa sawfa nutihi ajran azima ko mel noonu day xel sa dañ koo jox yool boo xam ne yool ba màgg la mi ngi noonu mbokk suñu boroom subhanahu wa taala moo farataal ci ñun jihaad di baat boo xam ne tey jii occidentaux occidentaux yi diabolise nañ ko ay ñangal nañ ko réyal nañ ko ba ñépp ñi ñuy tuddee intellectuel soo tuddee jihaad ñu siggi xoolaat la waaye mbokk julit yàlla mi faratal aj makka yàlla moom moo faratal jihaad lii problème bi rek mooy lan mooy jihaad ak lan mooy aj makka mbokk jamono ji ndax gis ngeen kenn ko tàggoona ma ngay aji ji makka waay abadan amul lu waral loolu mooy jamono dañ koy aj jotagut ca am na ñu inscrit partout dans le monde des millions toog di xaar lu tax parce que jotagut na am jihaad it noonu la mel la nga xamee ni nii tey jii mooy occidentaux yi li ñuy def ndax du jihaad jihaad la ñi ngi jihaad ci yoonu taaxut comme niñ ko nar a jàng ci kanam boo déggee li ñuy tëddee OTAN bi Amérique jiite mu ëmb ñoom Angleterre rek France ak yépp lan mooy seen jubluwaay pour défendre seen bopp de un pour tasaare seeni bëgg-bëgg de deux keroog bi Sarkozy di bombarder Libye ngir yee ne dafay samp démocratie ndax libyens yi ñoo bombardé ji woon France déedéet mais ñoom ñoo xool ba mu neex leen ñu ne kat Xadaafi yow defoo démocratie dañuy dal sa kaw yu yónni sunu maamum réew mu dem daganal ko ci kanamu africain yi mi ngi noonu ñu xëy xëy indi seen i bombardier seen i char de combat tas dëkk ba dàq Xadaafi samp fa seen bopp loolu ma nga topp ca tànku George Bush. keroog ba muy bombardé Irak keroog ba muy bombardé Afghanistan ndax daa waa Irak waa Afghanistan ñoo ñoom bombardé États-Unis déedéet mais ñoom dañoo gëm ne voilà ñee Saddam Hussein doxalul démocratie dañ koy daaneel daaneel boo xam ne tey ñaata millions d'Irakiens ñoo ci dee ca ba tey mi ngi noonu gis nga faw daa bañ fa bàyyi loolee mbokk ñoom loolu lañ gëm seen taaxut lañ gëm seen démocratie lañ gëm amma yàlla mi borom asamaan ak suuf wàcce ab téeréem di borom yërmaande wàcce njubam dafa santoo nit jullit ñi ñu fexe ba amoon kattan tasaare la nga xam ne mooy dëgg ci kaw suuf loolu nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala bi mu koy def nañu xam ne musul am ci yàlla subhanahu wa taala jamono yonent bi ak i sahaaba ay ñenn ndaw wala ñenn mag ñu xëy xëy rek buddeeku commencé créer seen groupuscule naan dañuy def ay attentat di rey gauche di rey droite déedéet mbokk ju loolu du jihaad loolu fitna la bu ñu yàlla nattoo te wallahi ku xam xam tey li ñuy tudde Daesh li ñuy tudde Boko Haram ñu xool bañ sosoo ba tey yàlla xam ñen ñoo ko sos waaye ba mu sosoo ba tey ñu xool ñaata ñoo dee ci seeni loxo bu doon dix millions la xamal ne neuf millions cinq cent mille yëpp ay jullit la ñoo mi ngi noonu xamal ni 9 millions 500 yëpp ay jullit lañu loolee kon du jihaad fi sabilillah jihaad fi sabilillah moo ñu yëkk ci kaddoog yàlla ngir aar jullit ñi ngir tasaare lislaam looloo tax loolu ay bëri mi réew ñoo koy def tey jii kay di buurub Arabie saoudite nga xam ne day attewoo lislaam bu woote woon ne jullit ñi dañoo war a jihaad tey jii ngir libéré ji la nga xam ne mooy Irak libéré ji la nga xamee ne nii mooy Libye libéré ji dëkk yi nga xam ne occidentaux yi noot nañ ko su boobaa mbooy li mu jullit ba mu kàttan dafa war a topp seen gannaaw am maa nag pour benn groupe jóge fii rek ñu ne jaayante nañ ak Serigne Thiam ak ci bisimilah nañ dem jihaad góor gu ñu gis ren di mag mu ñu gis ren di loolee mbokk loolu du jihaad loolu ñu bàyyi ci xel bu baax am maa bu ñu amee amirul mu'minin bu jiite dawla boo xam ne islam moo ko moom. suñu borom mu ne jóg leen jihaati fi sabilillah def leen groupe yu ndaw muy armée yu ndaw de de détachement ko am saraya lañ koy wax ci arab mi ngi noonu wala boog amir bi joxe ordre na ñépp jóg comme ni mu xewoon keroog xasootu tabuk mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam ne joxul kenn ndigal pour mu toog na ñépp jóg dem gis ngeen loolee aw infiru jamia borom bi nag subhanahu wa taala ni am na ci yéen ñoo xam ne ñi ngi des gannaaw toog di xool fan la mbir ma di mujje su dee armée bi dem na ñu gañe leen ñu ne alhamdulilah man ba demuma ca guerre ba man comme ni mu xëy woon keroog xasot uhud gis ngeen naafiq yi lu ñu waxoon bañ dàqee sahaaba ya law atauna ma qutilu ñoo ko def waxoon nañ leen bu ñu fa dem mi ngi noonu maa ngi sant yàlla man ba ànduma ak ànduma ak ànduma ak ñoom yàlla xéewal na ma man ba ànduma ak ñoom bu dee ne nag jullit ñi ñoo gañe bu ko defee ñu fàtte ngañaay yu jullit ñi ak xiiwal gi leen yàlla defal mel ne mosuñu siq dara waaye lu ñuy rëcc koy ñoom mooy aka neexoon man ma demoon ba gañaay yañ gañe ma jot ci saa wàll ma texe texe goo xam ne texe gu màgg la te mbokk da ngay gis ki pas-pasam yàqu day jàpp ne texe gu rëy mooy mu am alalu àdduna waaye texe gu rëy mooy fexe ba dem ajjana am déet mi ngi noonu loolu tax ñoom lañ gis texe gu rëy rek mooy àdduna fawzan azima borom bi nag ne noonu ngeen def li ngeen ne juum daa ji ne ngallaawaay na jóg jihaat ci yoonu yàlla ñi nga xam ne dañoo jël àdduna daa di koy jaay ngir jënde ko allaxira ay suñu borom am na fi ñeen fi muy wax naan wa min annaasi man yashri nafsahu bitigaa mardatillah am na ci nit ñi ñuy jaay seen bakkan ngiree am ngërëmal yàlla loolee da ngay gis yenn mu fassiroon yi noonu lañ ko firee doonte ne baatu yashroon ci arab day firi jënd di firi jaay amma buñ ne yashtaroon su boobaa moom jënd rek lay firi loolu tax am na ñu ko firee ni na jihaad fi sabilillah ñi nga xam ne ñoom ñoo jëndee allaxira ci àdduna gi la leen yàlla dig ca add ca àjjana ñu daal di koy jël jënd ko mattum àdduna mu jege mi ak nu ci mën a am ñaar ñun ñëpp amoon nañu ñu ngi noonu na fiqiya jël nañ àdduna daal di koy jënde allaxira jullit ña jël nañ allaxira jënd ko àdduna mi ngi noonu loolu borom bi subhanahu wa taala ne nag kiy jihaad fi sabilillah mi ngi noonu ca jihaad mbokk fi sabilillah rek lay doon yonent bi alei salaam laaj nañ ko kan mooy jihaad fi sabilillah mu ne ki nga xam ne jubluwaayam mooy ngir kaddu yàlla jëm kaw beneen intérêt bu la mën a yóbbu lu dul ne bi ngay dem ngiree diin l'islam jëm kaw yaa ngi jihaad ci leneen lu dul fi sabilillah suñu borom nag mu ne kooku ñaar rek a mën a am benn mu dem ñu rey ko fa walla mu dem gañe ay noonam ñaar yi bu ci mën a am borom bi nee na maa ngi koy waajal yool boo xam ne yool bu màgg la ca yool boobu mbokk ma muy aljanna yal na yàlla def ko mu nekk suñu yool
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ولله الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا بارك الله فيك suñu borom mu ne wama lakum la tuqaatiluuna fi sabilillah mooy yéen jullit ñi lan moo leen ñeel ba du ngeen nekk di jihaad ci yoonu yàlla wal mustadaafiina min ar rijaal ca ña nga xam ne dañ leen néewal doole ca góor ña wan nisaa'i ak ca jigéen ña wal wildaani ak ca xale ya allazina yaquluuna rabbana ñooñu nga xam ne ñi nga naan ay suñu boroom axrijna min haadihi alqarya génni ñu ci dëkk bii zalimi ahluha di dëkk bu tooñ di aji tooñ ñooñu dëkk ba fi dëkke waj'al lana min ladunka waliya ay yàlla def ñu defal ñu ñeel ñu ci lu bawoo ci yow koo xam ne danañu féetewoo waj'al lana min ladunka nasira ay yàlla defal ñu lu bawoo ci yow koo xam ne danañu dimbali allazina amanu yuqatiluuna fi sabilillah julit ñi day gëm yàlla ñi ngi xeex ñoom ci yoonu yàlla wallazina kafaru yuqatiluuna fi sabili taaxuut yéeféeri ñoom ñi ngi xeex ci yoonu taaxuut ñi ngi noonu wax nañ ko démb mooy lépp loo xam ne dañ koy jaamu ca du yàlla loolu taaxuut la fa qaatilu awliyaa shaytaan jëw leen xeex ak nooni sheytaane yi inna kayda sheytaani kaana daifa la nga xam ne moom mooy pexey sheytaane day nekk na loo xam ne nii lu lompañ la mi ngi noonu mbokkoo aaya yi bi muy wàcc fekk na am na ay julit yu nekk ca makka ñu tëj leen fa di leen mbugal tere leen dund seen diine gannaaw ba xatal leen fa ñoom mënuñu woon a génn jihaad mënuñu woon a génn gàddaay lan lañu amoon mooy ñaan kese di ñaan yàlla fu ñu mën a toll e yàlla yal nag ñu yónnee ku ñu xettali ba génne ñu ci dëkk tooñkat bi yàlla yal nag ñu yónnee koo xam ne mën nañu dimbali ca loolu itamit mbokk jullit la nga xam ne moom mooy arme bu jëkk ñeel jullit arme bu mujj ñeel jullit mooy ñaan heure boo demee ba say pexe jeex ngalwaay bul fàtte pexe yi sa boroom de ko ñaan fu mu mën a toll mu xettili la loolu na doon ci ñii nekk ci situation bi waaye xat-xat boo mën a nekk ci àdduna dem nga ba jaax la ca ngalwaay bul fàtte di ñaan sa boroom subhanahu wa taala lii it mbokku bu ñu xoolee suñu borom subhanahu wa taala nii mu nattoo woon waa Màkka yi ndax yéen a ngi dégg li xew fële ci Centrafrique ndax yéen a ngi dégg li xew fële ci Birmanie ca mooy ay nit ñoo xam ne seen diine rek moo tax ñu bundu xataal leen di leen mbugal di leen taal publiquement di leen daggate publiquement loo xamee ni nii la cay xew jéggi na dayoo un pour cent ba bu doon ci ab tubaab lañ ko def adduna yépp jóg waaye maadaama ay jullit lañu pour ñoom tekkiwuñu dara loolu mbokk da ngay gis moo waral itamit islam doon jihaad jihaadul islam ci ñetti mbir la daan tege heure bu armée islamique ñëwee cib dëkk dañ leen di wax ne ñun day dañoo ñëw ngir ànd ak yéen jaamu yàlla ñu bokk gëm yàlla su ko defee ngeen toog ci dëkk bi ñu tëral fi l'islam ñun ñëpp ñu bokk ay doomi ndey loolu mi ngi noonu su dee ne ñoom bañ nañu ñu ne ah kon li ci des bàyyi leen kon ñun ñu gérer dëkk bi yéen ngeen nekk ci dëkk bi di dund seenu kéefër ñun ñu bu ko defee ngeen di joxe impôt su boobaa ñun ñu leen di défendre jubluwaay ba mooy lan mooy kenn bundu xatal kenn ci mun ak dund diineem ku bëgg a dugg ci lislaam dund ci ca mbokk barki démboo njaay xale yi xëy na xamuñu waaye mag ñi fàttali ko dans les années quatre-vingt ñi ngi fàttali ko Bosnie la xewoon fële ci Bosnie ak Herzeg ci Bosnie am na ay jamono bépp xale buñ gis nga yor benn kaamilu alquran égal dix ans de prison képp kuñ gis ngay woote ci l'islam égal prison à vie bu dee reyuñu la mi ngi noonu loolu mooy xewoon foofu gannaaw bu ñu xëy xëy ne dañ fiy génne jullit ñi génocide lañ fa rey kenn xamul nu mu toll mi ngi noonu booba internet demeegul ni mu demee nii la fa nekk ci fitna loolu kon moo taxoon ñaareelu proposition bi muy loolu bàyyi leen ñu gérer dëkk bi ngiree ko bëgg a dund l'islam dund ko kenn du ko bundu xataal suñ bañee nag ne duñ def bii duñ def bee su boobaa la ñuy doog a xeex ak ñoom waaye ñu xam ne jubluwaayu lislaam ci jihaad nekkul pour xeex pour rey abadan loolu moo tax ba boo xoolee islam ñi mu tasaaroo ci àdduna bi ak jihaad yi l'islam jihaad da ngay gis bu ñu xooleen jullit ñi neuf cent quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi jihaad dugalu leen ci l'islam ñu ngi noonu lu tax ndax loolu nekkul woon jubluwaayu ah islam dëgg-dëgg mais jubluwaay bi moo doon kaddu yàlla daal di sax borom boobu nag ne ñi nga xam ne ni dañuy nekk di ah gëm yàlla ñoom daañu nekk di xeex ci yoonu yàlla mbokk dañuy xool tey ji yéen a ngi dégg Salahuddin Ayyub ñu koy tudde Saladin yéen xale yi Salahuddin Ayyub lii nga xam ne mooy xew tey jii ci Palestine yahud yu bon yi di ko def la gënoon a bon gënoon a ñaaw mooy li chrétiens yi occidentaux yi def li ñuy tudde croisade croisade boobu mooy mboolem chrétiens yi nekk Occident jàppal France ak Angleterre ak Allemagne ak feneen ak feneen ñoo lënkaloo woon ànd ak seen paa bi ne dañuy fay l'islam fële ci Palestine bi ñu fa duggee lañ fa def kenn mënu ko nettali demoon nañ ba mbeddi Palestine yépp di wala nga ndox ngir lañ fa rey ci ay jullit jël dëkk ba daal di fay dàq jullit ña ñañ jot ñépp ñu rey leen sax nañ fa lu jege quatre-vingt-dix ans yoo xam ne ñoom ñoo ko contrôlé muy chrétien yooyu Salahuddin Ayyub bi muy préparé pour jëli leen fa ca Quds fanweeri at affaire bi diire na ko ci waajal mbooloo waajal armeem saxal ci ñoom gëm yàlla xam leen ne du suñu matériel wala suñu kattan mooy xeex waaye suñu arme bi jëkk mooy ñu gëm yàlla wéetal yàlla loolee bi mu demee ba yegsi ci ay frontière ya nga xam ne moo nekk foofee ci Syrie def na loo xam ne fukki at ak ñeent yoo xam ne xeex ba diire na ko daanaka chaque at li ñuy gagné mooy deux kilomètres deux kilomètres ba fukki at ak ñeent ca lu doog a dugg Palestine dàq fa chrétien yooyee tasaare seen nguur ba samp fa l'islam loolee ca la palestiniens yi nekkoon ba ba Occident di ngembaat yahud yu bon yi indi leen en 1947 sampaat leen foofee waaye lañ ci doon jubluwaay bi mooy mbokko islam day dafa santaani la nga xam ne mooy ñoñam def ay effort ba dëggug yàlla samp ci kaw suuf ak lu ko occidentaux yi bañ bañ ak lu ko occidentaux yi ñàngal ñàngal ngal la waay jullit di génne loolu ci xolam da ngay gëm ne xeex ngir islam taxaw wareef la ci wareef yu jullit ñi waaye na ma la ko waxe woon ci début ba wareef bu nekk dafay am temps wareef bu nekk dafay am charte yu koy waral bu temps boobu amul charte yooyu amul jóg di ko def dañ naan la loolu xaram la ndax jullit du dugg ci ak xaru ca islaam bëggul la nga xam ne mooy xaru loolu kon la suñu borom yàlla wax foofu mu ne nag aussi bu ngeen demoon ba dogu ba jihaad bi tegee fa mu waroon a tege bu leen ragalati noonu seytaane yi bu leen ragalati noonu yàlla yooyu nga xam ne ñoo ànd ak seytaan xam leen ne pexey seytaane day lu lompañ la ca képp ku yàlla dimbali kenn mënu koo gañee mi ngi noonu yal na yàlla musal ñu ci seytaane ak yi gaayam mi ngi noonu ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا jazakallahu xayra suñu borom mu ne alam tara ila allazina qiila lahum moo tax gisoo jëm ci ñi nga xam ne dañu leen waxoon ne kuffu aydiyakum wa aqimu salaa fekk leen seen loxo yi bu leen fayu ca ngeen taxawal julli wa aatu zakata ca ngeen joxe lii di azaka falamma kutiba alayhim alqital biñ demee ba farataal ci ñoom nag lii di xeex ci yoonu yàlla ida fariqum minhum yaxshawna annaas ci noonu rek benn kuréel ca ñoom nekk di ragal nit ñi ka xashyati llahi aw ashadda xashya comme nañu waroon a ragale yàlla wala sax nu gën a tar loole wa qaalu rabbana lima katabta alayna alqital ñu naan ay yàlla lu tax ngay farataal ci ñun léegi xeex lawla axartana ila ajalin qarib ay yàlla lu teewoon nga yéexañu ba ci dig bu jege rek qul mataau dunya qalil nee leen dundug àdduna bànneexu àdduna lu néew la wal axiratu xayrun liman ittaqa alaxira day moo gën ñeel karagal yàlla wala tuzlamuuna fatila ca kenn du leen tooñ fatil wax nañ leen ko démb wala barki démb xooxub tàndarma boo ko xoolee ca biir xoox ba am na buum gu sew gu lemu ca kërë ba loolu mooy fatil aynama takunu fu ngeen mën a nekk yudrikkumul mawt dee dana daje ak yéen walaw kuntum fi burujin mushayyada doonte ne ne da ngeen nekkoon ci taax moo xam ni taax mu ñu kawel la ñu ngi noonu wa in tusibuhum xasana bu leen dalee lii di benn yiw yaqulu haadihi min indillah ñu naa yiw wi de ci yàlla la jóge wa in tusibuhum sayia bu leen laalee lenn lu bon yaqulu haadihi min indik ñu ne lii de ci yow la jóge yow muhammad qul kullum min indillah ne lépp ci yàlla la jóge fama li haulaai alqawm lan moo ñeel xeet wi le la yakaaduuna yafqahuuna xadisa xawuñu sax di mën a dégg di mën a comprendre benn wax maa asaabaka min xasanatin fa min allah lépp li lay dal ci yiw ca yàlla la jóge wa maa asaabaka min sayiatin fa min nafsik lépp lu la dal ci ay lu ñaaw lu bon ci sa bakkan la jóge wa arsalnaaka linnaasi rasula ñoo la yónni ñeel nit ñi nga nekk ab yonent wa kafa billahi shahida te doy na yàlla rek muy aji aji seede mi ngi noonu mbokk suñu boroom bi muy formé jullit ñi ca Makka dafa xamoon ne jihaad jotagul ci ñoom mu daldi ne bépp jullit bu yéeféer tooñ bu mu fayu loolu jihaad boobu moo gënoon a metti jihaad ak yéeféer yi ca mooy téye sa bopp ña nga ne yeew Sumayya di ko mbugal yeew Ammar doomam ja mi ngi noonu yeew Yaasir borom këram ba mbugal yu tar gu dégg ba teg ña nga yeefee ñoom Bilaal ña nga yeefee ñoom Xobaab ña nga yeefee ñoom ñeneen ak ñeneen saxaaba yi di gis loolu léeg-léeg jàmbaar yi saxaaba yi ku mel ni Omar ibn Xattaab ku mel ni ay Usmaan ak keneen léeg-léeg nga daje ko bu yéeféer mu xaaxte nu ko tëfli la léeg-léeg mu toj sa nopp léeg-léeg mu këf sa alal lépp lu mën a doon suñ borom ne bu kenn fayu kuffu aydiyakum te loolu mbokk soo delloon ci ñuy jàngale arts martiaux dañu lay gis ne doole bi gën a rëy bu doomu aadama am mooy muy maîtriser boppam ba ñoom dañuy wax ne soo mënee gañe sa noon ñu ne tu es fort soo mënee gañe sa bopp ñu ne tu es puissant te ñu ne dans un combat ki ëpp maîtrise ci boppam ki gën a dal kooko ëpp chance pour gagner combat bi mi ngi noonu boo joxe ci benn mbir bu xewoon fële ci Japon rek dafa am ñaari grand maître ñoom lañ koy tuddee ci li nga xam ne nii moom mooy karaté gars yi dañ leen dajale woon benn gala léegi pour ñu daje ay ma dem nañ ba màgget waaye am nañ ci lijaasa yi gën a kawe yëpp bi ñu dajee ci gala bi ñoom ñaar ñu war a def combat ñu jàkkaarloo ku ne fixe sa morom ci bët ba temps bi ñu leen joxoon jeex kenn ci ñun bougéwul mbooloo mi tàcc leen la waral lool mooy ku nekk yaa ngi maîtrise sa bopp di xool ana ban réflexe la sa noon di jëkk a def loolu nag moo taxoon suñu borom bi mu formé jurit ñi ci loolu ba léegi seen xol toj ba seen bakkan moom génn ci ñoom li ñuy def lépp yàllaa tax bañ waree jihaad nag suñu borom ne dem leen ñaar fukki jurit su ngeen dajeeg ñaar téeméeri yi fir dàq leen am déet du loolu yàlla wax de in yakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atayn lu tax mooy booba suñu borom entraîné leen cuub na leen ba li ñuy def yàlla kese ñoo tax mu koy def te it mbokk jurit mi nga noonu lépp looy def ci yàlla kese tax résultat ba kenn xamul fu mu nar a yem gis ngeen loolu kon la borom bi wax kuffu aydiyakum waqimu sala loolu it day wane ne ba tey it mbokk ay julit bu ñu tollul ci ne mën nañu jihaad islam waxu leen ngeen dem jihaad abadan suñ borom nee na wa tad'u ila salami wa antum antumul a'lawna bu leen wootee jëmee ci ak juboo fekk yéen a féete kaw am ngeen kàttan amma julit bu néewee doole mën na maslaha ak yéeféer bi baba yàlla subhanahu wa taala di ko yombalal nu mu dunde diineen kon kuffu aydiyakum wa aqimu salaa te ngeen taxawal julli te joxe azaka te mbokk mi ngi noonu loolu moom du teqalikoog jullit jullit moom du dem fenn bañ na ko léegi mën ngaa bàyyi julli amul lu tax jullit di bàyyi julli amul lu tax jullit di bàyyi joxe azaka abadan tànk mi ngi koy man borom boobu nag bañ demee ba Madina ba yonent bi alayhi salaam am ñu ko dimbali muy waa Ansaar mu am fa cité état boobee suñu borom nag farataal ci moom ne ko léegi mën ngaa xeex mais loolu amee nag naafiq yi ak jullit ñi seen xol dëgërul ne waaw yàlla lu tax nga ñuy farataal léegi xeex am na gu ñu kattan gu ñu mën a daje ak ak ak yéefiir yi ana lu teewoon nga xaar ba jimmi jamono mi ngi noonu suñu borom yàlla lam leen di ko tontu mooy xam leen ne yéen ñii di ragal nit ñi na ngeen waroon a ragale yàlla dunduk àdduna day lu néew la ca àllaaxira moo gën ca kenn du leen toll même bu leen wóoroon ne bu ngeen demee jihaad ñu rey leen yéen ñëpp comme ndigalu yàlla la def leen ko lu waral loolu moo di leen a mbokk àdduna lu mu yàgg-yàgg day jeex ah waaw léegi ana jamono yonent bi ñi doon jihaad ak ñi daawul jihaad anañu di ñoom ñëpp dee nañoo way kon mataa dunya qalil xoolal tey buur yi ngay dégg Lat Joor Albureeg ay ñu demee noonu yàlla na yàlla yërëm leen ana ñu àndoon ak ñoom ndax am na ku ci des déedéet tey jii guerre yi nga xam ne moo mujjoon fii mooy 1914 18 ña nekkoon ci biir guerre ba tey ana kan moo des ci kaw suuf kenn desu ci ndax ba guerre ba jeexee léegi en 18 tey nous sommes un siècle mi ngi nii ah loolee kon day won ne borom bi ne matau dunya qalil adduna dafa néew allaaxira mooy la nga xam ne mooy la gën ca képp koo xam ne def na lu baax kenn du ko fa tooñ lu gën a néew ci gën a néew borom bi nag wëlbatiku ne leen ragal dee day ba tax nga naan ngeen naan nañu xaar jihaad dee moom daw koy dutee nga dee fu ngeen mën a nekk bu dee jotee ngeen dee même bu ngeen nekkoon ci taax yoo xam ne dañ koo kaweel buruujin mushayyada yoo xam ne kaweel nañ ko fortifié ko bu dee ñëwee dana leen fa fekk loolee mbokk ñun ñoo ko dund en direct keroog 11 septembre étage yi gën a kawe ci États-Unis première puissance mondiale ñaari immeuble war sët xaw ma war sët te nañ koy waxee xaw ma nu ngi noonu ya gën a kawe foofa ci États-Unis suñu borom won adduna bi ndax bëri na ay xew-xew yu am nit ñi di ko dégg ci ci gisuñu ko mais suñu borom won adduna bi immeuble yi na muy jóoroo ñoom ci seen wàll bopp ñu ne trois mille personnes dee nañ foofa keroog ñi ngi nekkoon cinquantième trentième quarantième étage ila axiri mbokk bu dee jotee fokk da ngay dee am déet mi ngi noonu ca buy wone ne itamit bu dee jotul kenn mënul tax nga dee après yàgg na ay affaires yu ñu ciy wone benn waay boo xam ne bokkoon na ci ñi mucc nee na bi avion yi dalee ba ma gis immeuble yi dóoru li ma doon ñaan yàlla yàlla yàlla na dee gi gaaw yàlla na dee gi gaaw parce que wër na ma day dee nee na mu dem mu ñu perdre co- connaissance bi mu xamee dem ba yàgg mu dégg mu ximmi lu ko dégg portable am sonné nee na bi mu ko fexee ba génne ko frère bi di ko laaj na ko diw mu ne ko am man la kay maa ngi trentième étage mu ne ko loolu étage amatu fi étage yëpp dóoru na ci suuf loolee la sapeur pompier jël portable bi di ko topp di ko topp di teggi ay tonnes ay fer ay nangam ba yegg ci moom génn ko deewul gars yi ku nurta dee du dee am déet waaye bu dee jotee moom foog nga dee ah gannaaw loolu suñu borom woon ñu bokk na ñoom li ñu gëmloo mooy américains yi li ñu gëmloo place bi ñu gën a protégé ci kaw suuf mooy pentagone am déet pentagone fa nga xam ne fa la ah KG bu bu bu état kii armée États-Unis nekk ah Pentagone yàlla duuru foofu ab yow waay ah ak Amérique la fa nekk ci ay mission anti anti missile ak ay patriote ak ay yu kenn xamul yooyu ñu jàppoon ne loolee nañ ko def ngir avion bu jógee feneen di bombarder ci Amérique loolee dañ ko teel a intercepté effectivement bépp avion bu jege États-Unis ay nangami junni kilomètres mën nañ koo intercepté waaye ndekete suñu borom fan la leen dikkal min haysu lam yaxtasibun am déet jël avion bam départ ko ci biir Amérique dóor ko ci biir Amérique gis ngeen ah loolee kon mbokk day wane ne dee ci loxo yàlla la nekk ku yàlla tudd nga dee toog sa kaw lal teewulaa dee ku yàlla tuddul deewul dara du la tax a dee bokk na lu may fàttaliku ci guerru Afghanistan bi benn jigéen mu neen cey nit ñi bu leen ragal ñaari doom laa amoon benn doom ba demoon na jihaati benn doom bi toog ci kër gi avant muy jógee kay di jóge jihaat kii accidenté na dee kay jóge jihaat moom ñëw na dara dalu ko gis ngeen xoolal rek de ñaari doom kese kay jihaati na ñëw dara dalu ko kii toogoon ci kër gi moom accidenté daal di dee kon bu leen am lu ngeen di ragal lu dul yàlla jalla wa ala borom boobu subhanahu wa taala nag ne heure boo xamee ne nii ñëw nañu nattu xéewal dal ci ñoom ñu naa li day xéewal lagu bawoo ci yàlla rawatina luñ daan def ko yéeféer yi bu ñu masaan tub dugg ci lislaam année boobu yàlla def taw bi naat jur gi baax ñu naa li day xéewalug lislaam la li day baax na amma bu ñu duggee ci lislaam jamono joj yàlla nattoo leen ci ay feebar wala ay mbay mi baaxul ñu ne bokkoon ma ji diine ah lii day mooy mooy gaafug muhammad moo ñu ko indi gis nga borom bi subhanahu wa taala ne leen déedéet kullun min indillah li neex ci yàlla la jóge li naqari ci yàlla la jóge aay bi ci topp nag boo déggul alxuraan da nga naan contradiction la ndax yàlla nee na kullun min indillah lépp ci yàlla la jóge naam lii nattu yépp li neex ak li naqari gannaaw ba nag suñu borom ne yonenti yàlla bi lépp loo xam ne dal na la ci yiw ci yàlla la jógee ay julit lu mu am ci xéewal nga xam ne xéewalug yàlla la li gën a màgg ci xéewalug yàlla muy ngëm gim la defal waaye bokk na ci njaboot gi bokk na ci alal gi lépp xéewalug yàlla la amma li la dal ci ay tolof tolof xamal ne loolu ci sa bakkaar yi la jógee gis ngeen mbokk suñu borom mu ne ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum mi ngi noonu wa yaqfu an kasir yàlla subhanahu wa taala ab jullit da koo bëgg a fóot ci kaw suuf loolu tax erreur yi ngay def loolee suñu borom yàlla la muy la ci jéggal moo ci ëpp wa yaqfu an kasir waaye léeg-léeg mu tapp la ci teg la yenn nattu ngiree fóot say bakkaar loolu tax keroog xare Uhud bi jullit ñi defee erreur yàlla bàyyi leen yéefére dal seen kaw yaquluna anna hada suñu borom ne ne qul huwa min indi anfusikum di jàng nañ ko ci ali imran naam lu tax yéefére gañu suñu borom ne yéen a ko liggéey yéen a def erreur keroog hatta ay yonent yonent yàlla yunus lan moo taxoon jën bi wan na ko ah di moo def erreur a waay mi ngi noonu yàlla na ko demal waar dëkk bi mu dem waar waar wuy wuñ ko rek mu dem yoonam ca xaarul ndigalu yàlla dem yàlla pini ko ci biiru baleen kon loolu moo tax suñu borom ne li la dal ci yiw ndogalu yàlla la ci mbaaxam li la dal ci ay jafe-jafe ay nattu la yu la yàlla nattu ngir say bakkaar amma nag de manière générale lépp loo xam ne mi ngi dal ci kaw suuf ci yàlla kese lay jógee imma ci dogal yi muy dogal kaw niya nga xam ne moo ko soob dogal ko wala imma mu def ko ci sabab boo xam ne doomu aadama yi ñoo koy def comme ni mu waxee ne zahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas li yuziqahum ba'da allazi amiluun doomu aadama yi bari na catastrophe yi am ci géej gi catastrophe yi am ci jéeri ji lan moo ko waral bakkaaru doomu aadama yi mi ngi noonu loolu lépp nag borom bi bu dee julite moom mi ngi namm ci moom mu tuubaat dellu ci yàlla toroxluwaat dellu ci yàlla ba bari na ay natt yu dal julit na muy ñaane yàlla di toroxlu ci kanamam loolee di for ay bakkaaram di yëkkati ay darajaam loolee mën na ko tabbal ajjana sax nu raw la ko julli ya koor yi di tabbal ajjana loolu moo tax ba mbokk mi ngi noonu suñu borom yàlla ne ñu nag yow yonenti yàlla bi li tax ma yónni la dama laa yónni ngir nga nekk yonenti kese jàng nañ ko démb wa ma arsalna min min rasulin illa li yutaa yonenti dañ ko yónni kese ngiree mu jottali yàlla nag moom mooy seede ndax nit ñi jëfe na ñoom jëfewuñu looloo tax yonent yàlla ba keroog yowmal qiyaama dana gis xeetam di ñëw mu am ñu mu xàmmee ci seen njàpp naan leen kaay leen naan sama déeg bi malaaka yi puus leen di leen delloo jëme ci yoonu sawara mu ne ay yàlla ñii sama xeet lañ bokk suñu borom ne ko waaw waaye xamoo lu ñu sos sa gannaaw mi ngi noonu ay la nga fa bàyyi woon yépp soppi nañ ko yonent bi ne kon suxkan nañ ma sori kon yàlla rek mooy ka nga xam ne mooy aji seede lépp am maa keneen ku dul yàlla sax seede mi ngi yem ci benn place mi ngi yem ci benn jamono mi ngi noonu yal na yàlla seede ci ñun yiw bay tax mu gërëm ñu adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli xaal loolu ñuy dégg ci rajo yi ak télévision yi mooy guddi tey gi dañ cee war a julli fukki rakka ak nangam beneen guddi juróom-ñetti rakka rakka bu ne nga tari nangam tari nangam tari nangam déedéet loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxewu ko loole ay nit ñoo ko créé de toute pièce dolli ca la leen neex ci ay pay yu ca yàlla teg waaye loolu mbokk amul benn cosaan ci diine mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaw. Hmm. waaw. Hmm. dama waroon a sangu set fàtte ko ba julli fajar ba pare su boobaa da ngay dem sangu jiwaat set daal di julliwaat fajar gi ni nga noonu jàpp ba nga jàppoon loolu taxul nga mën a julli farata moom boo julli sangu set da nga koy da nga koy julli amma bu doon te ne ne yàlla dogal na fàttewoo ko waaye ndox amul ca fajar jaa ngi waaj a wees su boobaa da ngay tiim julli amma nag bu dee da nga koo fàtte complètement ba julli ba pare gannaaw ba sa xel doog caa dem moom bu doon midee cinq heures rek wala ci ëllëg saak lu mu mën a doon da ngay sangu ju set julli mboolem julli yi nga julli ci gannaaw loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon waaw naam bismillah naam ki nga xam ne dafay toog di seetaan télé dégg la nga xamee ne ni mooy seenu makka ba di noddu ndax mën nga ànd ak moom topp ko ala kulli xaal loolu moom ay ngëneel la rek yonent bi alayhi salaam nee na ki dégg aju nodd mu wax la muy wax ñaanal ma wasila dana am nangam ak i nangam comme nag yow waajaa ngay nodd ca Makka waaye yàlla def na nga dégg nga dégg ko ah nga wax la muy wax rek loolu tuyaaba la waaye nag bokkul ak sa jàkkay koñ bi nga xam ne ñoom nga fas yéene wuy ji mi ngi mel ne rek waa ji jàkkaam nodd nañ ba pare wuyu ji na ba pare dégg beneen nodd loolu zikrullah la rek su ko defee baax na su ko defut it amul benn problème te it loolu xéewal la wax bi ma paree démb tafsir rek benn soxna su mag mi ngi may wax imaam xéewalu yàlla damaa toog suma biir néeg dégg nodd goo xam ne xaw ma fu mu jógee mën a xoolal rek kii nodd xaw ma fu mu nekk maa ngi toog sama biir néeg yàlla indil ma ko ba sama biir néeg am na ñoo xam ne dund nañ ba dee mosuñoo déggoog nodd yaa ngi dégg ma ne ko ah xéewal la de waaye donc xoolal mbokk ñi nga xam ne ay tëx lañu am na ci kenn koo xam ne dem na ba mokkal alquran xam nga ñoom dañ koy jàng nii dañuy tari ni alquran saar yëpp ba alquran bi jeex mais mu ne lenn dong ko naqari ci àdduna mooy moom mënul dégg alquran loolu rek moo ko naqari su ko defee kon bokk na ci xéewal ngay dégg kàddug yàlla wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam xanaa ñu mujj ci mbokk ba la rek bismillah waaw
man la laaj bu fekkee da nga ñëw bu xam ko bu fekkee da nga am soxla dégg nga diggante xale bi nga ñëw ñu am mbokk yi dégg nga def ko non nga ne bu dee da nga ah
bu fekkee da nga am soxla bu ma soxla ci fayal ko waaw ba gës waaw waaw fekk nga ko teewul kër waaw dégg nga looy def da ngay xool nga
waaw ala kulli xaal ala kulli xaal su dee ne moom wóor na la ne da nga am pexe boo ko tàngalee ca waxtu wi du romb su boobaa da ngay wuti pexe boo ko tàngalee ca waxtu wi du romb te bu doon fajar nga yeewu moom en général balaa jant bee fenk dana def lu jege une heure de temps bu dee dëkk bu mel ne Ndakaaru moom jàpp naa ni pexe mën naa am am maa nag bu dee ne pexe boo ko tàngalee amul du tout ca sedd na seddaay boo xam ne ragal nga ne soo ko sangoo dana la lor su boobaa mën ngaa tiim ngir julli fajar googee waaye gannaaw ba nag fokk nga sangu pour mën a julli yeneen waxtu yi ca topp mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain